mbokk internautes yi dal leen ak jàmm fi mu ne nii leer na nañ ki nga xamante ni nag mooy Halima Gadji ñu gën koo xam ci Mariem Dial ci série télévisée bi di maîtresse d'un homme marié leer na ci lan moo tax nag bokkul ci saison deux bile saison bi nañu ko bonne annonce bi sax ci la coow lu njëkk daal di dooree ndax nag ci affiche yu ñu daal di gis ak yenn ci ay pose ak i photo yoo xamante ni nag moom lañ doon def bande annonce li nga xamante ni moom mooy saison deux bu maîtresse d'un homme marié la ñu daal di nag yenn nag ci ay artères yi Dakaaru euh, rawatina ci ay panneaux publicitaires waaye nag gis nañ ci ñëpp ci actrices yi nga xamante ni ñoom la ñu doon duppee actrice principale yi ku ci mel ni Lalla ku ci euh, mel ni ki nga xamante ni moom mooy Jalika waaye nag gisuñ ci woon Mariam Dial ñu bëri doon wax ne sax est-ce que du nag mbir mi suspense la wala boog ñëpp dañuy laajte ana Mariam Dial lii lépp ci buzz bi nga xamante ni moo war a daal di indi nag entrée wu euh, saison deux bu maîtresse ji ñu gën koo xam ci Marième Dial mi nga xam ne moo doon incarné bile rôle euh, bu Marième Dial nekkoon ñaareel bu euh, Cheikh Diagne ci biir série bi euh, doon wujjeek Lalla PM Ndiaye fu mu toll nii nag nee na daal moom moo daal di nag bàyyi ndax nag ci saison deux bi nga xamante ni moom lañu daal di lancé nag épisode bi ba mu daal di nag jàllee ci ñëpp ci lañ doon laajte ba ci sax ca chaîne YouTube ba fi ñu daan nag dem ci commentaire yi nag ñu bëri doon laajte ani Castex xëy na moom Mariam Diallo nit yi ci boppam ñoo ko daal di wax mu génn ca noppeem nga ndax nag ca compte Instagram laa def ab post xamle ni nag ne si je ne vis pas de mon art je préfère arrêter maanaam daal bu fekkee sama wàllum artiste gi ma nekkee di ci daan doole nag bu mu ci mënul dund nag naa arrêté moomu ko gënal maanaam daal bu nu ko déggee moom Mariam Diallo jafe-jafe xaalis la daal di am ak ñi nga xamante ni ñoo yor production bu maîtresse d'un homme ndax nag dem na bay wax ne nag dem dem na demoon na ba nekk ab star boo xam ne dañ koy dégg fu ne di ko gis fu ne waaye nag eh, ci ay problème kese laa dëkk du mën a fay sama loyer du ma mën a régler samay problème te nekk ab star kooku eh, wax sax du ko gëm moo tax ma préféré daal di toog te sax nag li may def dama ko mën lool eh, moo tax respecté ma dafa war ci man moom Mariam Diallo lii lépp la bécc nag bokk ci lu ko métti mu daal di koy bécc nag ca compte Instagram am la daal di bind lii lépp comme pour wax ne rek que daal di nag jote ak ñi nga xamante ni ñoo yor euh, série bi di maîtresse d'un homme marié mu mel ni nag dina handicapé bu baax a baax déroulement bi ndax moom mi nekkoon na nag nekkul woon sax parmi les actrices principales waaye nekkoon na actrice principale bu série bile ndax tout tourné autour moom mi nga xamante ni moom mooy Mariam Dia ci saison une bile waaye nag fu mu toll nii nag moom wax na li nga xamante ni moo ko métti benn lay nag ab pak la xëy na itam leneen moo daal di laxasu ci ci doon moom Marième Dial dina handicapé bu baax a baax déroulement bu saison 2 bu maîtresse d'un homme marié